asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu yi ñi di suivre chaîne bi di leen dalalaat seen nouvelle vidéo la République c'est à lui de prendre ses responsabilités bu mu xool nii sa waay moo ko jàppale. Eh, eh, am na photo am na photo bu ñu wone sànq je crois. waaw mais joxoñ bi joxoñ bi Ousmane di joxoñ di jox maay ça me dérange hmm. c'est le chef de l'État na ko xam ça me dérange le fait que muy dox ak si tapis rouge bi ça me dérange. là on a l'impression que c'est Diomaye qui qui accompagne le président Ousmane Sonko comme c'est Diomaye le premier ministre Ousmane le euh, le président mais c'est très simple. Wow, mais gars yi ñii dinañ dee de. cttt ah. ñoom dal sa suñuy gis Sonko ak Diomaye di ande ande bu rafet di daagu nice sen xol di gën bon quoi ah. en tout cas daal lu ma di conseiller de ndoxu glace bu leen di sori. di waxaale tamit ñi nga xam ne ñoo leen di invité ci plateau télé ñoom tamit nañ di faral di jël ay glace toj ko def ko ay doñ nañ di faral di jël glace toj ko def ko ay doññ di ko teg ci plateau yi def ko si ay siyo wala si ay bool teg ko ci plateau yi nga xam ne gars yi bu ñu commencé di wax bay xataraayu rek ñu jox leen benn doññ ñu lokk ko seen gémmiñ bi quoi. sinon dina am ku dee en pleine émission salam.